am na ay concertation ak bureau politique yi kon boo jekkee-jekk wax ne da ngaa suspendre say activité loole nag maanaam discipline parti bi sax mayiwu ko te nag lépp xam ne dafay tax ànd bi ñu ànd ak suñu naw la loole kenn ku nekk daf se war a xar sa tàng tubay yéen a kaay gi de Le Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu Pastef bu Ousmane Sonko daan nañu investir lu toll ci dix-neuf ci Ndakaaru ak ville bi yéen a kaay gi nee na Pastef partout journal bi di Walf Fadjri a ni na du ndax fi nga xam ne mooy Colobane Fass Gueule Tapée foofee nag ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar am na si ñenn ñoo xam ne élection yi ma ngi waaj a ñoom ñoo ngay tojantey bopp ñoo ngay xuloo ñoo ngay ñiiroo dem sax bay portante plainte yéen kaay gi du Source A nee na Colobane Fass ki nga xam ne mooy Thierno Ndiaye mooy yóbbu fa mbaxana doonee benn ku ñuy wax Babacar Ba ñoom ñaar ñëpp ci Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk Babacar Ba dafa def ab commentaire ci Thierno Ndiaye loolee moo ko naqari mu daal di koy plainte ca diwaanu gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu Abdoulaye Daouda Diaw mi nga xamante ni ci parti socialiste la bokk nee na waa APR ni nga xam ne moom la ñu bëgg a ci investiture yi ñun waa parti socialiste waruñu ko nangu tey waruñu ko nangu ëllëg ndax bii bukki bii njuur bii samba bii ki yaayam tey loolee la ñu waa APR bëgg a te waruñu ko nangu te parti socialiste obligation la mu daal di li nga xam ne mooy ab caution ma yéen kaay gi de Le Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu jege li nga xam ne mooy complot yéen a kaay gi nee na nag parti socialiste sa diwaanu géej waaye ñoom ñoo ngi dànkaafu ñoom ñoo ngi mën a menacé ñoo ngi dànkaafu ne danañu nag présenté ay liste si juróomi communes yi nga xam ne moo nekk ci département bu Guédiawaye ndax ñoom nee nañu am na lenn loo xam ne mun ñu koo nangoo ñenn si ñoom sax wax nañu ne Aminata Mbengue Ndiaye dafa daal di trahir yéen a kaay gi di Vox Populi xëy dañu xibaar naan ñu ministre bi ñu dénk kaaraange réew mi di Antoine Diome daan nay wax ci ñi nga xam ne ñooy ŋàññi gëm-gëmu ñenn ñi ak ñuy song tarixa yi ak kilifa diine yi loole nag Antoine Diome dafa wax mu daal di dakk lu ko muy maanaam mu jël yat wi yéen a kaay gi di ci napp gi ci diwaanu Sénégal ak napp geeg jafe-jafe yi nga xamante ni moom la làmbool journal bi nee na maanaam surpêche moo am li ñuy génne ci ay jën bëri na loola yéen a kaay gi nee na changement climatique bi bokk na ci li yàq ak napp gi maanaam yorin wu baaxul wi ak yi nga xam ne ñu dugg ci géej géek ni ñu bëree daat nay gi di source xëy ci commission ad bi nga xam ne taxawal nañ ko assemblée nationale journal bi nee na mode fast track ndax sud du Quotidien nee na nag am na lenn loo xam ne jaaxal nañu ci doxinu majorité parlementaire bi ndax nag nii nga xam ne moom la ñu doxee ci mbiru Boubacar Biaye ak Mamadou Sall musuñu koo doxee ci jamonoy Ousmane Sonko wala Barthélémy Dias wala sax Abdoulaye Baldé wala Omar Sarr jamono ji ñuy dindi seen malaanu kiiraay yéen a kaay gi di laas nee na bureau assemblée nationale bi dinañu daal di daje talaata ji nga xam ne moom la ñu dëgma la ngir nag déposé seen rapport yéen a kaay gi di enquête xëy ca diwaanu Bignona foofee nag dafa am benn saret boo xam ne dafa jaar ci benn miina am na lu toll ci juróom benn ñu si ñàkk seen bakkan